Macky Sall génn na ca pale ba am na lu muy wax nañu dem seeti Macky Sall conférence de presse boobu xam ne def na ko di dalal militant yi pour xamal ne Sénégal nekkul ci dëkk boo xam ne dafa am fitna ñu xooli Macky Sall ca Sall. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant di am mbégte ak contentement bu yaatu di gërëm waa Sénégal ak armée sénégalaise ci défilé bi nga xam ne amal nañ ko xool ngeen matériel yi nga xam ne moom la Sénégal yor may xamal nag yeneen président dëkk yi nga xam ne ñoo wër suñu Sénégal na ku yëngu-yëngal ma gësam yëngal am nañu armée de terre bu dëgër am armée de bu dëgër am armée bo xam ne mu ngi ci sous-marin bi am terre am mer am air dama ne wayu kaaraange yi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ak gendarme yi ak aviateurs yi ñëpp xam nañ ne Sénégal léegi kaaraange la neexee bu leen ngeen nelaw ba yandoor boo leen ngeen nelaw ba yandoor benn dëkk boo xam ne yaa ngi wër Sénégal ku ñu jéem a xoxotal dama ne bu kerogee nga gis loo xam ne dina mel ne xoxotal léegi nag ngeen may ma ma waxtaan ak journaliste yi parce que bëgg naa tamit militants yi fu ñu dajee rek ñu génn dëgg ma leen di gërëm di leen sant ma jël journaliste bi question am après ñëwaat yi nga xam ne mooy yéen ndax xam nga ne suñu digganteeg parti bi tey la gën a dëgër. ñu ngi lay nuyu le président ñu ngi fay. ñu ngi lay nuyu di nuyu sa soxna ma Marème Faye euh, di wax ne sa première question mooy gis nañ ne médiateur de la république defe naa yow yaa ko nommé yaa ñu ko gën a xam moom wàcc na ci terrain bi recueillir de euh, li nga xam ne mooy doléance opposition bi. ndax ñoom dañoo bind doléance boo xam ne toll na ni lu tolloog euh, li ñu wax ci li nga xam ne mooy wàllu parrainage bi nee nañu parrainage bi dañ cee bëgg waxtaan ak yow bind nañ lettre jox ko ko médiateur indi na ko ci yow ñu bëggoon nga wax ñu leetre boobu naka nga ko jàngatee ak lan nga ci nar. mais il faut ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que ñoom nee nañu bëgguñu parrainage waa mais bëgguñu parrainage dañ ko waxtaanee mais danaan bëgguma parrainage. dañuy yëngal gësëm dañuy mars loolu du àdduna man bañu ma waxtaan man bañu ma waxtaan bañu ma waxtaan mais nañu ko jaarale ci yoon bëgguñu lii man lii laa bëgg ñoom bëgguñu ko mais dama waxtaan na neex borom kër te nag neexul ba neexul kër gi man maay borom kër gi dañ ma ko loué ah. dañ ma loué kër gi juróomi at nañ ma ko loué juróom benn at du ma nekk fi di fay location depuis boobu bëgg nag tollantiwaat ndax kër gi neex na ma kon nag ñu nekk ci kër gi ne may doxalee bu fekkee neexu leen mais bu soxla ñu génn ci kër gi kon daal su ma la déggee monsieur le président médiateur de la république indi na lettre bi lettre bi ñoo non jàngat naa ko léegi nanaa ko li nga xam ne moom laa ci xalaat dinaa la ko wax mais ñoom tamit nañ indi seen xalaat ñu xool ko su ko defee ñu mën nga la xalaat nga pour toog ak ñoom ngeen waxtaan non loolu amul problème yàgg naa leen woo dialogue pour ñoom dama leen di baab man la leen di baab man mënu ma leen baab parce que ñoom ñëpp ay borom bopp nañu xoolal Idrissa ñoom ñëpp ay nant nañu kon fii ay baab amu fii ay naxe mbaay amu fii beneen bi mooy les leaders de l'opposition ñoom ñëpp nee nañu dañu bëgg a def marche wàcc ci télé bi lu mel ni la fi amoon ci 23 juin moom lañ bëgg a dekkalaat ci sa nguur loolu naka nga ko jàngate ak lan nga ko préparé. mais xam waxante dëgg Sénégal toll nañ foo xam ne jarul ñu def ay marche ay marche lii day ay coow Sénégal benn bopp la ay ragal mais dama gis ne marche bu ñu koy def dañ ko war a teg ci loo xam ne lu am farata ak fula parce que ànd na lii laa bëgg ñun bëgguñu lii mais nañu toog ñu waxtaane ko mais jarul dem di ay marche ay assemblée ñuy sànni ay xeer de la ko parce que tamit i faut ñu xam ne institution de la république yëpp boo xoolee mu ngi ci diggante assemblée ak palais bi hôpitaux yaa ngi fi hôpital principal fu mu nekk malade dañuy nelaw am na yoo xam ne jaru ko yi passé passé na mais li nekk suñu kanam dañ ko bàyyi noonu mu jàll te man xam nga man du ma ko wax sax pour nappay waxuma ko sax pour jéem leen xoqatal barki démb waa Allemagne envoyé nañ ma ay lacrymogènes yoo xam ne yaaram kalaa la tudd maanaam boo tiseloo yaram kalaa euh, am am na ba pare dañ ci def ay genre xeetu poobar sanam useni forox yooyu nga xam ne ay foroxal ay foroxal yooyu nga xam ne dañ koy kaay tasan mais bu la jege rek boo tisoo la yaram kallaa ngay dëkk ba pare ba pare ba pare du ma la nëbb waa France yónnee nañ ma barke démb ñaari bato liif yoo xam ne liif yi ñu la ko dóoree buñ la ko raayee di nga toog ñaari at di oxatu te doo taxaw fen yooyu xam nga yooyu man bëgguma ko SSN bëgguma ko essayer seen kaw man je préfère essayer ko ci ay agresseur ah. ak ay sàcckatu xale mais pas ay nit ñoo xam ne loolu euh, monsieur le président question bi ma am nag maa ngi ko am pour Adjaratou Marème Faye euh, waaw non am problème Marème Adjaratou Marème Faye euh, question bi yow yaa moom dañu gis ne les femmes yi nga xam ne ñooy soxna yi leaders yi ñu leen di wooye les femmes leaders ñoom nee nañ dañoo bëgg a wàcc ci terrain bi def marche bu mag ma bëggoon nag yow en tant que soxna borom euh, borom réew mi mhm. naka nga fas yéenee aborder loolu parce que ay jigéen lañu te yaakaar naa jigéen jigéen a koy tontu. maram mhm. loolu dama ko ciy junj tuuti rek parce que mhm. tamit maram du président ci kër ga la nekk rek du loolu loolu loolu du rëlam ñoom seen soxna yi soxna Idrissa Seck ak Sonko ak Malick Gakou ak Pape Diop ak ñooñu ñoom ñoo taxaw ne dañuy jéem a marche pour wal na ñoom tamit dafa am lu leen xam lu mu leen di xamal bu ñu bëggee seen bu ñu bëggee seen jàmm bu ñu bëggee seen jàmm parce que man tamit du fi nekk di tëj seen jëkkër yëpp ñoom ñëpp non du ma fi nekk di tëjaate rek quand même du ma fi yor caabi boo xam ne dama leen tëjaate parce que il xam ne du man maay tëjaate du man maay tëjaate justice indépendant mais c'est pas moi qui ferme les gens maram xam nga kan lay maram di wax ak ñoom bos bu ñu yëkkatee kaddu di ko xas naka sudul noonu ah boobaa loolu man damay taxaw fu fële def ko affaire jigéenu jigéen monsieur le président euh, sama dernière question moo nekk nii ma lay tàgguwaale euh, di wax ne dernière question bi mooy gis nañ ne candidat yi ñu ngi commencé bari ñi postuler tout dernièrement gis nañu ki ñu wooyee Samuel Sarr nee na candidat lay doon à l' élection présidentielle 2019 ndax loolu yóbbuwul sa fit tiital na la wala tiitalu la ko. waaw dama ne na ñëpp nekk candidat na saa Ndiogou ak Kouthia sax nekk candidat ak ak ku munti doon ak ku munti doon ñoo nga nekk candidat arène baa ngi nii daal parrainage laa waxoon dañuy waxtaan bu fekkee juboo nañu ñu bàyyi parrainage xool lu ñu def bu ñu jubóowul nag ñu xool li nga xam ne moo fi nekk mais il faut encore ma delluwaat ci li ma leen bëgg xamal nañu génn maram ci affaire u institution kii nii kii nii su ma diggante moom affaire palais ak administration yoram nekku ci kii la ko war mu ngi koy def ma ngay cuuraay ba mu gilli ma ngay togg ba mu neex ma ngay solu ba mu rafet ma ngay ma jàpp ma ngay julli te jigéen bu am kersa boo xam ne bugguma ay rongoñam di tuuru ndax mbégte ak contentement dara bu leen déglu non maram xam nga li moo tax bëgguma mu rek nekk ci ay débat ñu ko ci tënk maram nëppaloo quoi non bu mu maram maram non maram non maram non maram non maram non maram non maram non non non dafa lan ko waaw lan ko bàyyi leen ko ki deful dara